mon amour vraiment Fafa moom rëccu mu lañ koy indee ci kër gi parce que j'ai vu que nit ku baax la yar nañ ko fañ ko war a yaree du dugg si yoonam newul te day def liggéeyam ni mu ware vraiment Fafa daal allah. en tout cas man moom neexuma. lu tax nga ne neexul. neexuma gis naa nim lay xoolee gis naa bët yi mu lay xool bu lay xool di charmer di def ay manière charmer lan foofa moromam daa nekk fii fii ay moromu baay mag ay moromu nijaay ma fi ne yow da nga di jigéen da nga da nga jaloux rek bébé da nga fii rek da nga bëgg rek. waaw loolu moom am na waaye tamit ma lay avertir faites très attention. attention si lan tamit bébé. dama lay wax rek parce que li may wax yow mënoo ko xam yow góor nga man jigéen laa maa mën a gi maa gis li li li waral cause bi maa koy gis maa koy dégg. bébé. fiir képp mais Fafa bëtu bon laa koy xoole ups eh bëgg naa xam koy déglu hm. ma laaj la. soo doon dox far dégg sa tur ngay taxaw déglu wala ngay continuer sa marche. ça dépend. <laughs> exactement tontul nga sa bopp sa propre question et je vois qu'il y a d'autres choses beaucoup plus importantes que ñu war a mën a discuter avec ak yow. lu mën na nekk la. Hmm. mais yaakaar naa ne yeewu béy. يلا لولو dama gis lu baax ci moom kese wax. Oh. naka laay toogee yow ngay apprécier ay fafa je ne sais pas ma xaw ma sax toogee yow ngay apprécier ay fafa. bul yóbbu débat bi foofu dama ne la man fafa bon laa koy xoolee bët bon laa koy xoolee. après nga toog di ko apprécier te yow déjà yow yendu woo ci kër gi xam xamoo lu xew ci kër gi nga ne da ngaa apprécier ba xam liggéeyam ni mu war mi koy def ni mu waree. wala defeewu ko ni mu waree. bébé samay jéen a ngi nii léegi dañ koy dañ koy passé ba mu tali wala samay chemise Bah normalement ma ko. ah quand daaw ma la ko defal en tout cas daal jërëjëf lu mu néew néew ku jëful du ko je vois bien que ni ku sonal nga si ça couple yeeg entre yow keba. comment. un beau gosse comme Keba. talentueux élégant. xale bi sourire bi rek bu ko defee nga kontaan dalay xool rek sa xol féex nga di ko xool démarche bi xale bi lépp caaj la je vois bien que ne xale jigéen duñ ko may jàmm et après te yow it Mina soo ko bëggee fiire da ngay sonn trop waaye ndawal gi tan gu ci bëgg da ngay sonn ndax kii budul moom bi doon keneen xolal li ma dig ak li ma ko dig mënta nen dafa fees sama xol lëndëmal say gët ba mënatuma xool feneen xoolal sama xol moom rekk a ci ne xoolal xaw ma di kafe ñëwaat. yaakaar naa ne na sa bopp li muy salaam ak li ma koy jox ñun ñaar rekk la. Ah, Eh, hey, Pap. Mau dukung gak igin? Yes, nggak, ada. Apa? Sama yang sejam. Ah, SK. Ani ah, nggak def? Yes, nggak. Ah, Kafe di labu, kan? Kafe. Iya. Papi. Kafe nggak bugo. Kamu mau kan maaf, Andi. Ah. Kafe di mufa indun, wai sum amai fafa it gild. Hmm. Ragalod. Iris ragal ragalod mana def? Aïe, calculer. Oui, mais il faut me calculer. Nous sommes en train de jouer avec le feu. Des <laughs> filles, de place ou pas. Mais vous t'avez nous là quand la candeur, c'est ma gueule. Tiens, lu mu waxoon naa la ko. Faa lu xew. yow Kéba moom nga doon jéem a biti. xoolal ay dóor la woon du slam bobu. dóor ay dóor la woon ndaxte. foog ma def loolu itamit pour yeglo ni que ni moom mooy sama soxna yow it mënu ma ko ñëw voilà devant toi c'est impossible ay dóor la waaye yow mi xam nga ni man jaran nga maa dekkilaat dërëmu yaayu mbay ndeer xolal jaran nga ma sax xolal watu ndel denk na la yottu kel ko ba set xal yow it ayo bul def ni tamé bra mon na la dina xam naa ni nii mënuma laa wax lo gem ndax ci situation bi ma fekk waaye ngir yalla ngir yalla rek xam naa ne nag loo mu siwu waye bi ngir yalla sutural ñaan ngir yalla rek ngir Maria. guys. Salam. Mm, bye. sëñ kii wax sang bi. waaw ça va Mina. yaa ngi toog Alaaji Pap. yaa ngi jàmm. waaye seen toogaay bi génn de lu बीबा तो ले जबन के वो मैं कहने कुछ करेगी lu xew Baye Diam soxna Amina Keba Seck ndigle dafa bañ te amul waatal ci suuf ambiance amul mun nga ñëw may jàmm ah mais tamit nag Keba xam naa la te yéen ñaar bokk ndey ak baay ngeen calme nii am na lu xew wax ma gaawe ma ba dara xewul Keba Keba dara xew na mais Amina dara xewul dara xewul tu fais chier waa yow lan la sama kut de jaam la laaj waaye man de ma lool kër gi taq na de Fafa moom ane mu ah, lu xew am yaa amul Fafa dinaa woo léegi téléphone hmm? waaw <laughs> Fafa gàcce du ko laal gone gu woo bët ni moom ak li xew kër gi. kaam gis la kaam gis la kaay. kaam gis la lan la kaam gis la kaay. lan la lan la. ah